man borom itam na nga ko moytu gépp jaxasoo gu bëri bu am nga rek xamal ne am na koy doon sa diggante sa borom ak wax ju bëri ju am teeba wax ju bëri ju am teeba dee ko moytu ak nelaw yu bëri nelaw mënta ñàkk ndax boo ko defut daal di wéré ji ndax yàllaa ko bind nit waaye boo nelawee ba mën a sàmm sa wér rek doy na bu xasee bëri ay nelaw ci wax mënoon naa ñàkk rek mu daal def ak ñàkk sa diggante sa borom moo ko juróom benn nag mooy nga moytoo sàggan ci tudd yàlla waxoon na ne seytaane nga nooy li mu lay gaaw a xeex da lay daaneel mooy boo sàgganee ci tudd yàlla maanaam boo néewee fàttaliku yàlla ci sa xol ak fàttaliku ci sa làmmiñ rek xam ne mooy nga doon seytaane fi saasa kenn ni nga kenn ni nga amee càggan sa diggante sa borom rek ci fàttaliku tudd ko rek noonu la seytaane amee woon ci yow kon juróom-benn yooyu mooy juróom-benn yi nga xam ne ay ñett la ñu doon diggante jaam bi boromam te faaw mu jéem a dagg faaw mu jéem a dog juróom-benn yooyu ndax mën na nekkum ñett diggante mu boromam wa sax wér na ne am na taaxatal jëliili naka topp aji màgg ji laxaa ñeel na ko salaasat ñett min al usuli ci ay cosaan nee na wér na ne topp yàlla goo seen kenn ci yett yi moo koy lal awaluha aji jëkk seen alxawfa moo di ragal wa taaniha aji ñaareel seen arraja moo di yaakaar wal xubbu cofeel jaa a dikk na taalisan mbir muy aji ñetteel li dil usuli ñeel yi lay cosaan yett yi mooy tax a topp yàlla benn nga ragal boo ko topput loolu loolu dikkal maanaam mën na ragal sawra mën naa tax ab jaam topp yàlla ñaar it mooy yaakaar mu ne xel nañ àjjana mën naa tax topp yàlla ba ko ñetteel te moo ëpp doole nag mooy sopp kon xeeti topp yàlla yépp rek yett yi moo koy sabab benn kooku da koy ragal ni ki ragal sawraam mbaa mbugalam tax mu koy topp mbaa mu yaakaar àjjanaam ak yërmandeem ak xiiwalam tax mu koy topp mbaa mu sopp ko tax mu koy topp yett yi moom mooy sabab maanaam mooy lal topp yàlla bu mën di gis li ci nekk na am na mandarga bu mandarga moo amul rek aweeru la xalaamatul xaw fi mandarga mu ragal min arrahmaani ci ak yërëme ji tarkul maxaarim yi mooy bàyyi yu araam yi bilaa tawaan ci du li yeex ragal gi ñu jàppe ragal nag nee na mooy ngay moytu lépp lu araam bu lay tax yóbbu ci safaan ba waaye du buñ waaree rek nga daal di jooy boo ko jógee daal di fàtte sa saasa la leen wax loolu aweeru la maanaam saa yoo xam ne ragal gi nii danga ragal bàmmeel mbaa ragal dee mbaa ragal bis penc ak yooyu waaye du la du yàq sa diggante li nga bëgg a def ci yàlla araamam du dox sa diggante bàyyi bu araam ak kooku am waru la ragal gi am ragal gi am njëriñ tax ñu wax daal mooy ragal gu la tax moytu lépp lu araam ak lépp lu la yóbbu ci safaan ba xalaamatul raja yi mandargam yaakaar it raxabatu ko mooy sa xemam fii taaxatu rabbika ci topp sa borom bi max jël muqtaf yi ci yoonu aji xeñtu ja ba tey nee na yaakaar gi ñu jàpp yaakaar mooy nga farlu ci topp yàlla ba noppi nag yaakaar mbirumam ak ajanaam waaye boo ne yàlla bari na yërmande rek yàlla ajanaam dina koy joxe dong ñëpp xaj na ci rek daal tax nga fas say loxo ne yaakaar naa yërmande moom wala ñu jàpp ne ba tey ameeru la maanaam yaakaar gi ñu wax mooy yaakaar goo xam ne tax na laa farlu ci sabab lu lépp lu lay tax àgg ca ajanaam joojee xalamatul xub bi mandargam sopp it li dil jalaali ñeel borom màgg nga suuqu inaabatin mooy sopp ak tuub mooy sopp ak dellu xalaa tawaalin ci tottaloo maanaam li ñu xamee ne jaam bi sopp na yàlla mooy du mënoon gannaaw mukk ko yàlla waaye su ko mënee mooy di wéy rek loolu du sopp waaw maanaam cof kon cofeel bu woyof la maanaam cof bi li wéral na jaam bi sopp na yàlla mooy faaw day farlu ci topp ko ak sori mooy ko waaw ndax li nga mooy gi day xam ne koy xañ xam nga koo bëgg rek daal di bëgg lam bëgg daal di bañ lam bañ waaw moo tax ñu ne di may yàlla ba noppi na nga koo sopp loolu mënta am waaw boo ko soppoon dëgg-dëgg faaw nga di ko topp mu jaa adikk na xam xum jële ci ñoom ne am na xisyaanal jëliili naka mooy aji màgg ji it ay doom ba tey lixoon ñel na ko salaafut ñett tam ne usuli ci ay cosaan ba nga nee topp yàlla foog fekk yett yi moo koy lal ba tey mooy yàlla yu bari bari daanaka loo ko topp topp kenn ci yett yi moo koy lal yett yi mu la bëgg wax li ci ëpp lu bari bari ci mooy yàlla yi li gën a bari ci mooy yàlla yett yi moo koy sabab al kibru rëy wal xirsu ak xiir maxan doole seen wal xasadu ak kañaan fa man xalaa ku wéet mën xaa ci yett yi ataaxu kon dikkal ko arrachadu njub waaye nee na rëy ak xiir ak kañaan yett yi li ci ëpp ci xeeti mooy yàlla yi ci la ñuy dellu ku mucc ci yett yi daanaka rek mucc ci xeeti mooy yàlla yu bare bare bari wax ku ci nekk la mu def ak jaam fal kibru rëy xad ahlaka alagoon na iblis a iblis allah yéen a kadi ko rëbb mu ne rëy li ko taxaboon mooy xam nga ne iblis ba mu bañee sujjóot ak aadama te malaaka yépp sujjóot moom wax ne moo gën aadama ba tax na du ko sujjóotal réew googee moo ko alak yàlla jaare ci alak ko ba faw mu dëkk sawara te fas yéene ñëpp fekk ko ca loolu boobu la ko dal xam ne réew moo ko yóbbe loola wal xirisu xiir ba tey xadd axraja génne na aadama aadama al makki na muy aji yëkkati ko daraja xam nga ne aadama moo ko xawaa soxnaam bi leen suñu borom dëkkaloo ci àjjana mooy leen àjjana jëpp jëpp leen ci soxla waaxu sàkk ba mu des genn garab ne garab gee wala taqraba haadihi shajarata genn garab dong rek moom la wax ñu bàyyi ko ñu xëy xëy ba mënuñu faa bàyyi genn garab googa te xam nga ne lekk ci garab ga moo sabab ñu wàcc leen ci suuf waaw moo tax mu ne xir moom it moo génne aadama ak xawa ci àjjana ji tedd jooju yi ñu nekkoon wa xamala wa xamala yenn alxasadu kañaan wa xamala yenn alxasadu kañaan najlahu doomi aadama ja xalaa qatli axiihi ci lay mbokkam ma id id xawaa ba mu làqee taqabulan ak nangu ba tey nee na ñaari doomi aadama ya kenn ka moo tudd qaabil qaabil ci xaaf gi mooy kàccoor bi haabil nag mooy ku baax ka waaw ñoom ñaar ñooñu qaabil moo reyoon haabil alquran jàngale na ko ci suratu maida id qarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axar maanaam aadama dafa daan def soxnaam si xawaa faaw day seex góoru jigéen rek lay jurandoo suñ àggee ci war a sëy nag kenn ku nekk ka nga bokkuloon benn biir dañ koy jaawale boole laa keneen ngeen sëy te ka nga bokkuloon benn biir moom du ngeen bokk sëy xaabil moom di kàccoor bi nag bañ tolloo ci di ko may ñu bëgg koo may ka seexe woon ak xaabil ku baax ki bëgg a may ab seexam bu jigéen moom nag jox ko xaabil moomee ñu wax ne moom nag ci seexee woon daa gën a rafet ka seexee woon nag mbokkam moomee ba ko aadama bëggee def mu ne ko loolu yaa ko wax rek waaye sa doom waxu la ko aadama diggal na ne leen da ngeen def lu ñuy wax qurbaan qurbaan mooy kenn ku ne génn ci alalam ne lee jaamoo naa ko yàlla yooyu jamono nag daana am mandarga mu wane ne nangul nañ ko ndax bu dee lu yàlla nangu dañu yebal sabara dañu yebal sabara weex tàll mu ñëw jël ko bu fekkee yàlla nanguwul ko nag dañ koy bàyyi loola kenn jël ko bu baax ki muy xaabil daal di seet lu baax ci ay gàttam daal koy topp ne kon jaamoo jaamoo naa lii yàlla kàcceer bi muy xaabil moom seet lu yamaay ci am mbayam bu baax da ko jëre nee nañu seet lu yamaay mu teg ko fii ne moom leelu jaamoo yàlla ah yàlla daal di def topp seen pas-pas nangu xarum xaabil ku baax ki yàlla daal nangul xaabil ku baax ki te nangu ñu nag xaabil kàcceer bi xaabil ne ko ne dama lay rey ko ba loolu la ko topp rek noonu ko alxuraan nett lii bare ko moom ko reyee sax moo njëkk rey ci kaw suuf nit xam ne xamul mu ngi koy def mu yanu ko rek muy soppiku mujj jëm mujj soppiku ba nga xam ne waaye xamul mu koy def mu yenu ko rek bu yàlla mujj yebal ñaari baaxaa ñu xeex kenn ka rey moroom ma gas ci aw sàllam daal di suul moroom ma mu rey mu door ne waaw man daal xaw ma maa gàttum xel rek daal di rëccu nag lu mu doon yenoo mbokkam ñoom mu rëccu rey yi moom coono bi mu ci am rek ak ni mu yàggee moom coono bi rek moom la rëcc daal di gaaw suul daal di gas daal koy suul loolu ci warante bi ne woon ba adduna tukki ku rey nit rek xaabil am cëb cër ndax moo wane yoonu ku wane yoonu ku ku wane yoonu dem ku def la nga defoon rek nga am cëb cër te moom moo njëkk rey nit ci kaw suuf def gaaf gu rëy googu waxoon na ba adduna tukki ku rey nit ci tooñ rek xaabil am ci bàkkaar boobee moo tax mu ne kañaan gis na moom it noonu lay def itam bari na ñu waral ci xeeti bàkkaar yi qad nassa yaxal na cheikhuna sunu sëriñ asharifu kay sotti yonante al jili te mooy abdul qadir al jili laa zaale yàlla ba mu dem daa ridam di borom ngërëm wa daa tabjilin te borom mu màggal ne am na tasawuf naka tasawuf xalaa duniyee ni nekk na ci ab tabax arkaanu madd naa ko ponki tabaxam ba xalaa samaanin nekk na ci juróom it waaw nee na cheikh abdul xaadir al jilaani nee na woon tasawuf day mën nga koo misaali tabax kooku misaali tabax na mën nga ne am na juróom-ñetti kenn yoo xam ne ñoo ko yenu am na juróom-ñetti kenn yoo xam ne ñoo fond tabax boobu yooyu nag saxal xaliili moo tabak xaritu yàlla wax na bokk na ci ponki tasawuf nga tabe ci say ñaq tabe ci sa alal ngir yàlla ni sunu ibrahim tabe woon loolu kon bokk na ci jikko tasawuf warida ishaq ak ngërëmal ishaq maanaam gërëm la yàlla dogal lu mu def rek mu neex la na ko ishaq defe woon ba tey loolu bokk na ci yoon tasawuf bokk na ci ponk ya wa sabru ayyuba ak muñuk ayyub allasi mu nga xam ne qad faaqa kawe na rafetu muñ lool ayyub rafetu muñ ba borom sant ko ñoom al ñoom al xabdu ayyub borom sant na ko lool ndax muñ gu rafet ga wa noonu bokk na kon ci ci yoon tasawuf ak ci ponk ya rafetu muñ bu baax a baax isharatu ak junj li Zakaria ñeel Zakaria Zakaria daa demoon bay mag soxna itam di mag teewul mu ñaan yàlla doom su borom ne ko li ci màndarga ni mooy su fekkee dem nga ba soxlaan mënoo ci wax lu may tudd yàlla boo bëgg wax leen doo ko mën a wax rek tegtal ci ne soxna ci toll na ci ab diggante waaw ku ko defee nag kon bokk na ci yoon tasawuf te seen làmmiñ ci wax dara lu bokk te tuyaaba maanaam tudd yàlla ak lépp luy dellu ci tudd yàlla rek ak na Sakariya defoon ci yooyu jamono nga xam ne mënta wax lu may tudd yàlla ak lu jëm ci moom rek loolu bokk na ci ponk yi gën a màgg ci tasawuf te zaalika ni gurbatu yaxya tumuraanki ni yaxya suufu Muusa ak ngëmalulu Muusa al muhtada ka di ko ñu roy waaw bokk na ci yoon tasawuf ñeneen tumuraanki na ko yaxya ñenee woon ak ñenee ñagasal sa dund ba ci sa col na ko Muusa defe woon nga xam ne yére der rek ngëmal yére der rek daan sol amatul waajtaay waajtaay adduna ci col siyaaxa tukk ñu maryamin ak tukki doomi maryam tukki mooy wari lu ci kaw suuf si ndax gis kimtaani yàlla yi xiisa loolu mbiram la woon doomu mariam ji mooy xiisab nu mariam kon nitu yàlla waaye ku wuti yàlla dana di waree lu ci kaw suuf si ndax gis kimtaani yàlla yi ak wéet ak boromam wa faqru sayidina ak ñàkkuk sunu sang ba al muxtaari ka di kuñ tànn waxoo temoo al barra na aji baax ja ñeneen ñàkk na ñu ko sunu sang bu baax bi muhammad alayhi salaam coobayu ko ndax yàlla maye na ko soppal ko dojee mu wurus waaw mu ne rek na doyloo di xiif ak amar tey sant yàlla ak di ko gërëm waaw kon ñeme ñàkk moomu ba tey moom it bokk na ci ponk ci tasawuf fal tas al na ngay laaj alxaalima aji xam wax bu te ngay roy al muttabi aji topp li sunnati muxtaari ñëw sunnas ka ñu tànn xayru man kay ngën jikka nga xam ne tabiha topp na sayidina mooy sunu sang xabibina tey sunu soppe muhammad yi muhammad sallaa yal dool tedd nga xam ne ci moom rabbu ko boromam fii abadin ci faw nee na nga ngay farlu ci loo xamul laaj ko ko xam koo xam dooloo nga xam xamam ak diineem yoo xamut laaj ko ko booy topp toppal koo xam ne aw na ci yoonu sunna waaw del roy ci koo xam topp na ci yoonu sunna te boo roy ku bokkut ak kooku ndax xuwa moom kooku allazi mooy ka nga xam ne yow du ñu ko dana la tegtal ak dëxëra diiru jamono xalaa taaxati rabbika ci topp sa borom bi nga jëm ci aw yoon intalaa woo xam ne kawe na kama yekoonu naka muy nekkee jaa taxdiirin di borom ak wattandiku loola kañeel la min ittibaaxil maakiri ci topp aji war ji aji fexe ji al xaruuri kadi wóoraa kon te mooy seytaane dafa wax ne del topp ci ku roy sunna ndax ku roy sunna boo topp ci moom yoon wooma aw cal lay awale boo mënee jàdd daloo xam ne ah yaa ngi bëgg akot ci yoonu seytaane waaw ku mel noonu foo toll na ngay ànd ak moom loolu xam ne koy tam ci jawhar foofu nag fi la téere bi yem fa nas al dana nu ñaan fa nas al dana nu ñaan al mawla buur bi alxali bi aji kawe subhanahu salil naa ko lépp léelu ci moom siyaanatu ak ñogal dunia ci adduna wa oxra ak ci alaaxira xan radan walis alkande te rek day day jeex na mu tàmbali ñaan e noo ngi ñaan suñu borom musal na ci lépp luy xeetu alkande fii ci adduna ak fane ci alaaxira wa an mu wafaqa ak bu dee fi nu taw fi xale ila tibaaxi sunnati ahmada jëm ci topp sunnaf ahmad ak tawilil baax mi aji gudd ab jéego yal na nu yàlla tawfiq la topp sunu yonente bi bañ ko wàcc benn yoon wa an yu salli ak mu julli moom yàlla wa an yu salli wa an yu salli ma ak mu dolli musal ko wóolu xale ci yonente bi wal ali ak ñooña wa man ak képp koo xam ne intama askanu na la jëm ca moom dafa ñaanoon yàlla mar na sax ci sunna mu ne yonente bi yàlla na ko yàlla dolli nag salaatu salaamu mbokk mbokkam ya ak saxaabaam ya wa an nakoona ak nu nekk xolama di way xam xaamiliina tey way jëfe la mu xam wa an nakoona ak mu nekk awliya aji ay waliyu kaamiliina ñu di yu mat seen war nañu yàlla mooy muy xam tey jëfe la mu xam xam lu baax te di ko jëf ngir yàlla xam safaan ba te di ko moytu ngir yàlla yàlla boole na ci xejjam yi mat yu sëkk wa an nakoona ak mu nekk furxatal abraari di mbëggu muy baax ña jamihi mboole seen fi sirri ci lu nëbbu wal jihaar ak ci lu bir yàlla nu yàlla def ni mbégum mboolem gaa yu baax yi maanaam mboolem gaa yu baax yi bëgg ci ñun ñëpp nañ bëgg ci ñun biru bëtte wa an naxoo sa ak na làq taw bi tam tuub na suuxan buy aji sell wal nuur ak leer wal yaqiin ak wóolu wal futuux ak ay fatuxu ay ubbi loolu nu yàlla mooy tuub gu sell may nu leer may nu yaqiin may nu xeeti fatuxu yi nga xam ne moom la ubbil ab jaamam wa an yakoon ak bu nekkee don nizaamu wëlawee abadan faw sababu faw si kulli man di sababu jafe képp koo xam ne iqtidaaroo na bi ci moom nee na téere bi yàlla na ko yàlla def muy téere boo xam ne képp ku ci jàpp xam li ci nekk te jéem koo jëfe rek yàlla defal la ko mooy sa yoonu texe wa ay yekkoon ak mu nekk xamalan di jëf maqbulan jadi ji nangu heure bi it jot naa gërëm loo bi ci moom ak ilaaha buur bi wa rasul ak yonante bi ñu ne man mi ko taalif yàlla na ko yàlla defal muy jëf ji mu nangu ba ma amee ci ngërëmam amee ci ngërëmam yonante bi wa an yakun ak mu nekk sababan najaati di sababus mucc xablal mamaati njëkk faatu wala dal mamaati ak fa faatu ba yàlla na ko yàlla defal muy yoonu mucc tey ak ëllëg wa an yajwada ak mu tabe moom yàlla lil muridi ñeel taalibi ba as saadiqu di aji dëggal bil fatxi ci ak ubbi wal asraari ak ay mbóot wal xaqaa'iq ak dëgg-dëgg mbir yi yéen bépp taalib boo xam ne dëggu nga ci soobu yoon wi rek yàlla na la yàlla may fatxu xamal la secret yi xamal la dëgg-dëgg mbir yi ba sa aju fañu wa an akoon ak mu nekk man mii daa imat tawxiid yi aji saxoo wéetal yàlla wal fiqi ak saxoo fiq wa tasawuf ak tasawuf al mujjiidi kay aji rafetal yéen man mii taalif it yàlla may ma te mayaale sax mboolem jaamam ñi ñu saxoo it yi nga xam ne mooy yoonu mucc mooy yoonu ngërëm mooy benn nga tudde ko tawxiid fiq tasawuf mbaa nga tuddee ko iman islam ihsan maanaam gëm te yooyu ndigal muy ñaar te yàlla dong tax muy ñett ñett yooyu mooy tawhid fiq tasawuf bu la neexee tuddee ko iman islam ihsan wa an akoon ak mu nekk naajiyam di aji mucc mu ne laa ni ci kañu rëbb amin jami jundi yi ak ci mboolem kuréelam ba fi kulli xiina ci bépp waxtu ne maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci seytaane ak mboolem kuréelum seytaane ba faaw wa an akoona ak mu nekk naajiyan di aji mucc min kulli suumin ci lépp lu bon wa min jamihima ak ci mboolem la nga xam ne taxaafu dana ko soos dana ko soos mooy dana ko sib soos ci wala sib lañ ci jublu ak anfusu bakkan ya nee na maa ngi ñaan yàlla musal ma ci lépp lu bon musal ma ci lépp loo xam ne ku baax du ko bëgg ku baax da koy sib wa an ulaasima ak ma taqoo imtidaa ahmada tagg ahmad ma yonante bi maxa salaati ànd ak sama julli alayhi ci moom sarmat ba faaw nee na yàlla na yàlla may ma sax ci tagg yonante bi ak di julli ci moom ba faaw ku defee nag mu daal ne salla yàlla na doy tedd nga alayhi ci moom rabbuna sunu borom bil aali ànd ak ñoom ña wa bi sahaabi yi ak ci saxaabaam ya dawil kamaali ñetti wara mu mat asga salaatin gën jaa selli teral bi salaamin ànd ak doolu yowlu taxabu comme dana may lii ñeel ma kaw ni sama nekk mu jaawiran di aji dëkkaale la xoo ñëw yonante bi maxal adda bi àndal tey gén yal na yàlla saxal salaatu ak salaamu ci yonante bi ak ñooñam ak ay saxaabaam di salaatu ba ak salaamu ba yàlla na ma ca maye ma sax dëkkaale yonante bi mooy taqoo yonante bi saa yu nekk yal na yàlla maye ci salaatu bi waaye ma taqoo yonante bi saa yu nekk te ànd ak teggin yi yàlla ci a koy taqoog moom taqoo yonante bi te ànd ak teggin yi yàlla ci taqoog moom
maanaam kii jàng téere bi nag mu seetlu ne am na ay ñaan yu sëñ bi ñaanal boppam yoo xam ne booba daa fekkan xëy na loola di ab tolluwaayam waaye gannaaw ba mujj na weesu ko ba raw ko lool lool niki li mujj ñaan sax ci yàlla may ko mu dëkkaa léegi yonante bi te ànd ak teggin yi nga xam ne moo ci yàlla mujj na am ko ba buñ ko mënee wees sax mu weesu ko
foofu la téere bi yam koo xam ne déglu nga ko loo ci jàpp lu néew néew rek nga ñaanal ki ko doon def ci kaset yi jégalum yàlla ak yërmandeem ak bëgg rafet te lépp ci biir taalibe dañ gën a taamu ci yaari kër yi te yàlla defal ko ku defal ko bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ci daraja yi sëñ bu mag bi nga xam ne moo taalif téere bi